alihi wa sahabati ajmain nu ngi sant yàlla bu baax bu baax a baax nag di julli ci ki yàlla nëbbal boppam tëral ko ci tefes gi muy gët yi mbindeef di julli ci ay soxaa baam te yàlla defal ñu lu gën a jafe mooy alu sayduna Muhammad fi mu ne boo ne wa ala alihi daanaka groupe yonente ngay waxal sayduna Isa ne ci bopp amul woon ñuy julli ci ñoom di julli ci njëkk a toppoon ñëpp di ñaan yàlla mu dolli xeewal ci barke bàyyi Laye war may maam Seydi maam Joon ak mag ña di ñaanal njabootu Baye Laye gépp di ñaanal sëñ Ablaye yàlla na fi yàgg te wér bu baax a baax defe naa gis ngeen ni ñu tooge samay nii alaaji magu idda sëñ mataar ak jarbaat yi ak doom yeeg gis ngeen jaboot gi muy armeb yàlla bi ñii armeb yàlla laa leen jundullaahi laa leen tudde kon ñu ngi leen di ziar bu baax di ñaan li ngeen di def lépp yàlla na nekk ker yàlla na nekk ker ci barke sëñ Ablaye di leen di leen vraiment nag di di am mbégte bu baax a baax mbégte moo xam ne buñ ko doon jéem a melal sax du yomb man xam naa ne du yomb ndax lii ngeen di def waxoon naa leen ko nun dañ ko tàmm be tàmm nañ ko tàmm tàmm ba wax dëgg yàlla bu ñu gisee nit ne ci sax maanaam day day secteur boo xam ne ñun ñu ci ma yërmande ndax defe naa quatre-vingt ba léegi quatre-vingt nangam ñu ngi ci boole suñu doole suñu xam-xam ak suñu alal di ko ci def dama daan wax gaa yi ku ñëw baax na ku ñëwul baax na man principe boobu laay doxe ci diine ji man daal bu mbir jógee ku ñëw dañ kay def ku ñëwul dañ koy def te ñu ngi sant bu leen yàlla dimbalee nag wax dëgg yàlla <coughs> ba nun li ñu bëgg maanaam muy li yàlla def ci sunu xol ñu bokk ko muy gëm bàyyi laay nangu ne mooma bés bi ñuy fàttaliku bésam ngeen seen jël seen doole di ko ci def wax dëgg dëgg yàlla daal gars yi xaw ma ko muy tuuti ci moom mais ñun du tuuti ci ñun te xam naa ne ki ci biir lii may wax nii bu fi toogaatoon nii loolu lay wax ndax da daan def lu raw lii ngeen def sëñ Ablaye appel bépp bés bu ne dinaay wax xale yi ne buñ daan ñëw man dina ma denk minimum six millions juróom benn million bu nu agsee bay ñibbi dara du des joxal diw joxal diw joxal diw te diine ju joxu ko de du xaalisu appel bi de ndax xaalis boobu yor naa ko at yu bari la daan varier entre quatorze et quinze millions kii sama seede la mm-hmm. kon defe naa mënuñu woon jox sanga yi à l'époque lu sanga yi jox nit ñi lan lay wun da kon sang ñu ngi doon jël seen ñaq di ko defaat ci njaboot gi defe naa lu mel noonu tey lii ngeen def moom la symboliser bu ko defee maam sey di benn mag dafa jóge Cambérène ñëw mu ne ko gëj naa la gis mu nekk ko Seydina Issa dama amul woon lu ma la ziyaare moo tax ñëwuma mu ne ko diw mu ne ko laay mu nekk ko donte benn soccu la bu leen ko xeeb ci buggeen di ñëw andi ko donte benn soccu la ndax léeg-léeg njaboot gi am ku soxla soccu te du fi ne soccu soccu soccu bu ko defee maanaam eh, diine ji la sëñ Ablaye di wax ci jàngaleem yu mag ya daf ju daan wax bu ñu masaan ne ca réunion ba ba mu koy tëj nañu diine ji amul tànk yéenay tànk yi amul ay bët yéenay bët yi amul loxo yéenay loxo yi amul xel yéenay xel yi maanaam dafa naa wax boobu ñëpp ñëpp la land dinaay waxit ne man ak sama moroom war nañu xoolaat suñu bopp ñun ñëpp par rapport suñu bopp par rapport ak li ñu yàlla defal ak ñun li ñu delloo yàlla njukkal bi nisba ci li ñu yàlla jox loo xam ne mënoo ko fàggu mënoo ko jënd yaay liggéeyu ko bàyyi liggéeyu la ko yàlla xëy jox la ko muy gën yi mi def mm-hmm. ñu naan moom laag du moom mu dolli Seydina Isa ñoom laag di ñoom mu dolliwaat yonte yàlla Moussa muy maam muy Seydina mu joon alayhi salaam mais gars yi ñun est-ce que ñun li ñu war ci diine ji ñu ngi koy def xam nga mbir boo xam ne mënul xaar mbir bu mënul xaar yow la nga tollool def ko mbir bu mënul xaar kenn du toog di xaar loo cay def gis nga fii ma wan ginnaaw nii daanaka cent quarante nangam baas moo fi ne ci ay huit sur dix mathématiquement boo ko doon calculer surface boobu xam naa ne fekk cinq ans boo dajal boo dajal woon laayee ni mënuñu jënd benn baas bu jël digg bi maanaam man li ma gën a bañ ci àdduna mooy utopie nga xool baas bu nekk huit sur dix la à peu près dama ko à peu yi fi nekk nii ngeen xool surface boobu kon ñaata la léegi boo jëloon benn ligne bi doon ko jëndi baas baas bu fi war a mën a am fukki fan rek ngelaw da ko yàq ñaata million la lay jar bu ko defee li ci des ñëpp ak ciy xalaat mais lii ñu managul lii la laa indi tolloogul samp type baas nañ ci jàpp ba toll ba weesu loolu defe naa daaw laa daan indi ren dama koy changé xamul lu ko daaw man mii rek mën naa ko changé xaaruma feneen daaw laa ko bi ñuy jógee xaw ma ban dëkk laa ko ren digge bépp dama koy dindi def ko ay fast xaalis la mën nañ ko far xaw ma lu ci génne sama xel defe naa barke Demba naan nañu jalaat projet bi bu déwénee ñu commencé changé décor bi maanaam ànd ak man mënu laayee mu bañ a doon gént <laughs> gént baaxul diine ji de diine réalité le li ñu mënagul ñun ci la ñu ne ba keneen andil ñu lu gën li ñuy def bu ko defee loolu laay wax bu ko defee gis nga fii ñu toog nii njaboot gi ngay gis lu nee ngi ci ku amul métier nekkul fii di liggéey amu fi damay wax ne génération bi gën a doy waar ci laay mooy génération bii da nga xale bu dem ba toll ci master 1 2 da nga koy fekk mu tilim ne ci feneen ci diine ji liggéey bu jàng amee nga xool mu toog ñenn ñi ay direction école lañ jot kenn yi mooy ki ko dox xamoo ko booy bii toog nii bokk yor na ci école yi gën a rëy ci Sénégal ci arab fi mu ne am na ci boo xam ne ñoom ci seen loxo la ne pourtant boo leen seenee doo leen xàmmee ñun loolu lañ gëmagul dañoo gëm ni suñu suñu éthique mooy ku dem ba ne président sax bu bàyyi lay soxlaa dangay ngay sumb ñun loolu lañ gëm bu ko defee biir biti réew ak biti réew damay wax sama gars yi bari xaalis yëpp ku ñëwul da ngay ruus rek boo yoree lu bari téye ñun dañuy boole suñu juróomi doon di def de maanaam bari le da ngay debu ñàkk da ngay dabu gaaw leen gaa yaa ngi dem de ma <laughs> bëj ñu ngi dem maanaam lii may wax xaaruma ci dafa naa ñi may dégg ñëpp xam nañ xaaruñu ci kenn du alal du xam-xam du leen ku ñëw nag ñu téye ku ñëwul dañ lay bàyyi rek muy message bu ma jox ñëpp ñëpp li ci des mooy macha allahu macha allahu macha allah sëñ Ablaye ca ndinga la ma waxaat ko dama ko doon wax dam ñu fa def ñaari kéemaan parce jommal nañu ba tàyyi taawu na wilaay bi damay wax ni bokk na ci li gën a mat a jàng gëwuma ni am na benn aspect bu un intellectuel war a mën a aborder woote limaamu def ci analise bu jub génn ci sëñ Ablaay kooku moom maa ngi defee àdduna bépp ki yàlla waxal boppam limaamu nekk bu ñëwee mooy siiwal woote bi est-ce que ñu ngi xalaat wax bi mu ñëw taxaw ci taxawaay bi mu taxaw at yim ci def plus de cinquante ans xam-xamam alalam doolem wér-gu-yaramam lépp mu investir ko ba pare ñun ñum doon àndal wax man waxuma ne bàyyi la Ablaay matal ne déedéet man bokk maa xale li ñuy wax o sëñ Ablaye liñ ko joxoon ëpp liggéey na ba liggéey lu ko ëpp moment bi mu toogee doon xalif mu bàyyi fi benn slogan dañoo ñëw keroog kër ga man mii la àndal wàcc ñoon bi ñu bi muy wàccee ñëw ci xew ma man moom maag moom rek ànd wàcc fekk seen a taawam ak njaboot gi di ko xaar bi ko Baye Issa Ndiaye ne waxal mu ne ko Issa waxuma Baye Issa nag sang bi waxtaan mu ne lu may wax Issa fu jëf teew wax amu fu bërëb wa jëf fu mu teew wax am lii la sëñ Ablaye wax mu ne ñaanal boog mu nekk ñaanu ñaanuma xale yi tey ku ñu ñaanal yàlla nangu ko ñu ngi toog ci wetam daal ne gees ne Seydina laay mu nekk xale yi waaye seen jëfa ngoogu da ngay extrapolé nga boole ñett yi jëf ji ñaan gi xale yi ñaan gi xale yi jëf ci sa keroog biñ ko siyaaree may bi mu nee xalifa bi ko diine ji dama di ko ndokkal lii la leen yóbboo bu ko defee bu xale yi taxawee def nañ lu leen war ndax nee na ko ñu ñaanal yàlla nangu ko ba pare ne sëy naa seen jëfangoog mais nag jëf moom Baye Ablaye dee na fu mu xas ba ne wax amatu fa bërëb amatu fa place mais wax boobu est-ce que philosophiquement concept philosophique la damay wax ne du yëfu xale dama ko wax naa ko ba tey mag ñi bu ñu tënkee du ko ne moo koy tinki waxul bu kenn wax déedéet bu dee wax wax buy jariñ lay wax la bëgg ndax wax buy jariñ day andi jëf booy jëf nga jëf jaf ja gën lii rek lañu ñu bàyyi la Ablaye jàngal ba pare may wax ne gaa yi sama bu bëggee naatoon toog nii am jot gi lan lañ koy wax nun moo taxawal organisation yu fi ne moo ko taxawal moo ko créé leader yi moo leen jox li ñuy def moo kan la loo koy wax doo ko wax lu mu xamul amul kon léegi lu ci des mais ku ne loolu mooy dem leen liggéeyi te andil ma résultat yi bu ko def defe naa badu suñu jigéen ju baax ñi sama waykatu bopp papa Ibulaay jigéen ñi defe naa ci loolu la nekk puisque fa ma jëm mooy jour boobu dafa taw tabaski la bëgg ñu may lu déggu baax li may wax sëñ Ablaye tabaski day julli andak bay bàyyi seedi sa wax de bu sumuk. ba paré kër ga day ñëwaat day ñëw rek su mako fekk amna luñ ko defalal mu ñom ci ndekki àndaan nak ñun ñu dem ndinga la bo boo toolee kamba den da ngay xol suñu campement da ñuy seen dara newu mm-hmm. am bes ñu wacc bobu ga fa la ñuy def ñaan gi ñu agsi rek muy taw pour ñun dëkk baagi tak takk ta taw bi gennul périmètre bobu ko ñew ñona la taw bi nga ne fu mu doon tawé ndap yi ñu défaron def ci ñam yi taal yi ñu taalon tek ci cin ya dara te dafa taw ba wala nga door ka taal fayul ndab yàquwul dara sëñ Ablaye mu nga ànd ak ñoom toog ci néegu baye Ablaye Fall ba nonu bañu paré liggéey aat boobu ba defar yegg ca kaw tunda def fa benn genre waxtaanu daanaka waxtaanu évaluation daan daanaka mën tudd ndax dina càmbar fi ñu jaar wax ci gis-gisam ba pare gërëm ñaan noonu la daan def mais keroog bi muy conclure dafa ne man Ablaye Thiaw xam naa li ma yàlla jox kañ la commencé billahi wallahi taala dafa naa yaa nga fa woon aatu lii ma yor de xam naa kañ la commencé man sëñ Ablaye Thiaw ca ñu ko ci tunda ba wër ka mu ne xam naa kañ lay jeex te demaguma billahi moo ko wax jamono bàyyi sa sew la de ne demaguma de gars te ko ànd ak man danga fi yàgg wax boobu maa koy fàttali ñëpp ñëpp man ak sama moroom ak ñëpp bi ci des mooy il est grand temps que laayeen yi bokk ndey gis nga koo gis muy dem am na benn muus ci koñ bi sax dafa faa muus mi waxuma malaak ak sëriñ seeg nit ñi ku ne am nga koo bëgg léegi bu ñu bëggantee ba pare bëgg mbëggeel gi fan nañ jëm ak moom duñ ko delloo yàlla buñ koy delloo yàlla duñ jaar ci yonent bi ko yonent bi du bàyyi laay ko ko fi toogal du sëñ Ablaay keneen man mii wax ak yéen ku ma fi dogaale maa la dogaale boo ma joxee ay million maa ngi de waaye am na dërëm boo xam ne am na xam ne bu fa demee nag am na fu mu jëm man damay soxla 1 million ñu jox mako ko diine ji soxla 1 benn mille franc ñu lay andil téwéré yo xamné du sax bu cartes newul fenn deppul fenn te ñi ngay wax ñëpp teguñu ko fenn ku ci ne li ngay téy ci sa loxo yaagi ci dindi la ci app dék def lo xamné iblis sax bëggu ko maa ko wax iblis sax boo joxon da kay gedd ndax bon mais bu diine soxla mom oh oh sama bop nak la jidel ci limay wax ku am xam-xam boo mënee jàppale diine ji jàppaleel ku am xaalis boo mënee jàppale diine jàppaleel ku am doole soo mënee jàppale diine ji jàppaleel tey ñu bàyyi clivage baaxul koo fi xeeb am na ku ko bëgg koo faral am na keneen ku far keneen am ñoo xam ne ba ñuy liggéey ñan nañuy wax fi ne judduwuñu damay wax ne bari nu koy wax man mi wax ak yow la mu seqoon ak say waajur lu jiitu ngay juddu la waajur wala jur amoo ko ci ndax seqoo woon ak moom loolu bu ko defee maa ngi koy fàttali ñëpp dégg fàttali sama bopp sëñ Ablaye maam sey day bàyyam mooy taawam mooy taawam na ci ñëpp xalaat mooy taawam bu summee mbuba defar kër defar njaboot balaa yéen tey mucc ci li ci li gàllankoor lu baari ñu leen gàllankoor laa yen mucc ci ginnaaw yàlla moom la ndax 71 événement yi fi la ma fekk gisa ba coow lu jógee dafa ne du ma yàq sama diinay maam ndax man lu ma am diine jéem a ko jox lobi ba jóg ay ponkal naakaan Ablaye Sow koy toppa nekk fi mu ne pat dafa naa keroog fii yoof gii ba mu àndee xaritam bu bàyyi si dugg a génn daa dem mag ñëwaay bu leen bu ma kenn rey ak coow fii li fi ne Seydou Sow ko moom mooy mag fii maanaam ñun li ñuy théoriser tey da dund te sax yëfama li ñuy wax tey yëfama xalaatama du mën a xalaatam kese la mais jëfama sëñ Ablaye jël ay magam jox lépp fii sunu kanam mais ñun lu ñetti nit doon def ñett ñooñu ku ne dem ba lu macha allah yàlla dem nga sëkk ba pare mu mel ne mënuñu dara que duñ xool suñu bopp maanaam nit ki boo amul kilifa doo dem fenn maa ko wax loolu. àdduna kilifa fii ñu ne ba yow mal xiyaam di tukki kilifa mooy yóbbu lépp li may wax ni intellectuel yi may déglu yëpp àdduna yàlla lépp bu muy bindal la ne cellule yi gën a ndaw bokk na ci cellule cellule atomique bi cellule cellule atomique bi l'atome ay électron la dañuy wër électron yooyu am na bu ne ci digg bi mooy ëpp moo xoolam mooy at këfinu attraction bi yëpp moom lay wër même système boobu ba ci galaxie bi loolu la loo gis am na ci lu ma dépendre di di wërdu ci loolu loolu la la yàlla jàngal gis nga bu dem màkk goo ngay jàng kaaba gi loolu rek la même système lu amul dara gis nga lu amul ko la ilif doo dem fenn tey bokk na ci sunna si bàyyi lay si gën a wér bu fekkee yonente bu waxee sunna la moo ne woon ci ablaay ablaay moo maa ngi ku ko nangu nangu gi sunna su bàyyi ko weddi nga sunna su bàyyi laay bu fekkee waxam sunna la wax naa leen keroog bi ñu toog fi ma ne leen mais sëñ Ablaye ñaar la ñu moog maam di ñaari défi la maam Seydi 9 ans la mu ne àdduna bu desee benn bés yàlla day téye bés ba ba Seydina Issa am 33 ans mottali li ma doon dox mais boobu maam Seydi mu ngi nii ñu ne xam ma moom mais ba mu naa Ablaye ma si Ablaye ma kenn xamul fu mu ne <laughs> ba mu naa Ablaye ma si personne kenn xamul fu Ablaye ne mu ngi ca àlmul rëy bi ponkal mi ñëw di ñëw ba ne Seydina naa xam lu lu mu doon wax mag ñi sëñ Ablaay maag yéen a ci yem ni ngeen ko fi gise laa ko fi gise Seydina Isa nag ku mu mandu ci mbiram kuy gor mandu ci waa xam daa laaj maag yéen a ci yem da laaj ni ngeen ko fi gise nag laa ko fi gise mag ñi nag doon nañ ci xawaa'idu usul yi maa kaana lillaahi daama wat tasal wa maa kaana li gayrillaahi in xataa wan fasal lu yàlla moom bu dee buum day gën a gudd day gën a dëgër waaye cey lu moomul non seulement du àgg day dog ba pare day firinciku day firinciku may waxit ne di ko tey suma wax euh, jamono ngi boo xam ni wax fi maanaam la nit ki doon toog ci biir néegam rus ko wax ci xelam rus ko wax ci xelam léegi nit day am fito wax ko ndax benn appareil su mu yor bu tëjoo wax ka ba pare nag nekk ci réseau yi xac ba pare tejaat néegam day am lu gor jomb koo xam ne bu ngeen tasee ci mbedd da ngay sukk boo weetee bàyyi ko maanaam ñu ñëpp nañu war maalante laayeen war maalante leen joxante leen cër war maalante leen joxan leen joxante leen cër leneen lu ngeen def lii lu dul lii dañuy nax suñu bopp sëñ Ablaye la fi yàlla teg mooy xalifa yi moo fi ne de du man du keneen de bi ci des am nay rak may wax yàgga wax ne ku koy taral taral ay rakam dafa naa junni at ma koy wax ku ko bëgg taral rakam waaye mooy xalifa bi de mooy xalifa te nag yàqul xilaafa kenn yàqul xilaafa kenn man mii wax ak ñi ma xam ñëpp xam nañ ne nangami at xanaa nelaw mooy tax xaw ma ci lu mu ne nettaliwu ma man luñ ma nettali ci moom ma koy waxaat ah ah ci kippaaram laa nekkoon nag bàyyi sama lépp di xool di bind day déglu demal toogal ku ne nag damay wax ne ku ma ëpp loo xam ci moom jëlal waaye nag am naa fitu xam wax man li ma xam ci moom kooku ku may tey tey ba ci ku may bàyyi bàyyi ma te nag lii may wax damay wax ne cere sëñ ñoom laay àjjana sax du dog bay billaahi wallaahi taalaahi wax na ko sama maam mm-hmm. sama maam Seydi wax na ko sama maam yi Seyna Issa ëllëg ku la xam texe mu ne ko maam Seydou jógaat toog ne loo wax mu ne xam naa ëllëg ku la xam texe mu ne diw mu ne ko laay mu ne daal ma xam la fa moo gën ma bañ la baa ne tekk mu ne ko bu mettee fu ñuy jaar mu kooka andi addis ba mu ne ko du sama bàyyi ngeen jam mu ne ko maay taawam bu ëllëgee ku àgg sama bàyyi maa fa yóbbu waaye kii bu ëllëgee mooy jiitu yor décor ba sa ñëpp laay ku mu xam jàllan kii la de